gouverneur noo ngi lay nuyu bu baax di leen sant bu baax liggéey bi rafet na fa tabaarakallaahu li ngeen ci war a taxawe lépp taxawe ngeen ko yitte ji ngeen ci war a amit am ngeen ko ji te loolu mooy li gisoon at yi wees yëpp ngeen di ko jëfe service bu ci nekk am na yéene am na pësteef boo xam ne matale na li ñu bëgg lépp doonte moyens yi mënul bari mat ni mu war a mate itam yéene ji ak pasteef mën na ko mottali beneen bi ci des muy commune am nañu taxawaay buñ daa taxaw boo xam ne bu rafet la te wóor nañu ne moom lañuy taxawaat ba tey ci fànn yu bareebari fële dañ fa daa def ay sëkk te am nangami camion yoo xam ne ñoo fay ñëw pour sëkk foofu béréb yi fii ñu nekk xëy na du foofu moom foofu fii moom suuf su rafet la su yaatu waaye teewul am na lu mu soxla moom itam niwale ko ba nga xam ne dana maase loolu waa Seroute xëy na am na ci solo waaye commune itam am na ci solo la ñu daa taxawee ñoom it ñu taxaw ko ba mat sëkk rek dara bañ cee manqué te xam nañu ne danañu ko taxawee ndax loolu mooy seen passé partout nekk ci turu sëriñ bi ñu du leen sant bu baax di sant gouverneur waaye di sant préfet di sant sous préfet ñoom daanaka kenn lañ ci noonu rek ñoo bokk lépp liggéey bi ñoo bokk bëgg-bëgg bi ñoo bokk xalaat bi lu ci nekk loo ci xam ne suñu xalaat yées na ko sax ñoom danañu conseiller lañ ci war a def loolu ñu ngi leen ci sant bu baax di sant itam ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon liggéey bi te kenn ku ci ne am ci pëste foo xam ne mooy bii ma ci am rek loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax di leen ci sant di leen xamal ne lu baax lu nekk loolu moo ko baaxal ku am sabis boo ko fonkee ñëpp fonkle la ko boo ko fonkul kenn du la ko fonkle kon ndokk bi nga xamee ne yéen fonk ngeen seen bis te yéen a ngi ciy jàpp kemtulaay la ngeen man ñii ñoom jàppale nañ leen ci bu baax lu ñu mën a ñàkk mukk sant Senelec taxawaayam pour rafet loo xam ne def na ko daaw coono yum ci sonn te lépp ñu gis ko muy pësteef nga xam ne guddi gi ba mu jeex jógewuñu fa yàlla defal leen suutura ren ñu am courant bu doy bu yaatu yàlla na yàlla defal suutura ba benn ndog bañ ca am yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ki ñu koy defal nag jaar na ko mooy Seex Masàmba Seex sàmba mooy caatu sëñ Mor Anta Sali sëñ Mor Anta Sali mooy way juru Seexul Xadiim sëñ Mor Jaara Seexul Xadiim boroom Daaru Muxti boroom Daaru Salaam sëñ Afiya Mbàkke rakkam sëñ Balla Coro sañ Cheikh Coro sëñ Balla Coro ak sëñ ab sa ñii la sëñ Mor Anta am ci njaboot njabootam googu ñoo nekk ci gannaaw sëriñ Touba bokk ak moom benn way jur muy sëñ Mor Anta waaye ci li ko yàlla may nga xam ne moom yàllaa ko ko mayal boppam tax na ñoom ñëpp ñu ay rakkam ñi ci ëpp di rakkam waaye ñëpp di ay taalibeem ñu ko gëm nekk ci gannaawam jëfee ndigalam doon bàyyi ay tereem ñi ko mag ak ñi di rakkam ñëpp foofu lañ mas a nekk Seex Masàmba mii moom bis bii nag tey daf ci rawoon moom ndax moom lépp la ci moom moo doon jur la ci moom mag la ci moom waaye sëriñ la ci moom itam te mu nangul ko ko bu baax jur la ci moom ndax wayjuram génn na àdduna ba am ay weer yu néew mu doog a gane àdduna sëriñ Touba ko defal lépp sëriñ Touba moo jóge Mbàkke ànd ak ñu bari ay kilifa ñëw ba deqali jaar ci sëñ Mor Anta Sali fekk euh, tëdd na lu yàgg mu doog jàll fa ñu koy tuddee ci pataar gi mu gane àdduna pataar dëkk la boo xam ne mi ngi dend ak njaañ ba muy dem ñu bari la àndaloon sëñ Daam Abdourahmaan kenn la ci ak ñu baree bari ba mu demee ba xam tur wi ñu koy tudde version yi bari na ci lool waaye version bi ma ci gën a gëm man te sëñ Yuusu Ndaw waxoon ma ko lool rek laay wax waxtu mu ne loolu mooy ba mu fa jaaree dafa dem seet sëñ Mor Anta Sali di ko siyaare ne ma ñëw ñu ñu toog ci gaawar gi di ko nekk ba mu ñëwee ne leen dama doon laaj nu koy tuddee wuy juróom bi mu ne nañ ko tuddee Masamba Anta Ceebu mi nga xam ne moo jàngalañ seen mu war na sali loolu mooy version bi nga xam ne maa ngi ko jëlee ci sëriñ Yuusu Ndaw Yuusu Ndaw nag ci mag ñi la bokkoon ku ñu xam la woon fa tabaarakallaahu am na ñu wax ne dafa ñëw siyaare ko ba noppi bi mu ñëwee mu ne leen nañ ko tuddee sëñ Masamba Anta Ceebu waaye lépp benn la ndax Masamba Anta Ceebu xam nañu li mu doon ci sëriñ Massamba xam nañu li mu doon ci lislaam xam nañu li mu doon ci kokki doon kilifa goo xam ne ñëpp xam nañu ko fa tabaarakallaahu mooy kii ñu tudd sëñ Massamba bi mu ko wutalee tur ba noppi delluwaat Mbàkke waaye bi mu demee ba xaw a dër mu nekk ci suufam moo ko dalal alxuraan ci boppam bind ci alluwa ja mu doon tàmbalee bismillaahi rahmaani rahiim bindu boppam sëñ ma Masamba doog a tàmbalee jàng ba mu jàngee ci moom ab diir mu jox ko sëñ Daam Abdourahman mottaleel ko alxuraanam ba mu mën alxuraan lool manin wu yéeme rafet mbind lool ñi gën a mën a bind ci la bokk kaamil boobu mu ñëw jox ko sëriñ Touba mu ne ko lii noppi na kon léegi li ci des mooy jàngi xam-xam mu yóbbu ko ci sëñ maam Thierno mu jàng fa xam-xam yóbbu ko ci mu soobe sëñ sëñ Mbàkke Buso mu jàng fa xam-xam ak béréb yu bari yu wuute yoo xam ne fu ñuy jànge xam-xam fu ne nekk na fa ba xam lool li ñuy xam ci wàllu diine li ñuy xam ci wàllu lislaam li ñuy xam ci àll fiq ak tasawuf ak arul ak bayaan mu xam ko ba mën ko lool ba yéeme ci fa tabarakallaahu te loolu li koy seere mooy Sëriñ Tuubaa jël na ko defoon ko mu sës ci wetam yoral ko xasida yi lu bari li mu daa bind lépp mu di ko bind di ko ko jox mu di ko bindaat di ko leeralaat di ko maas ba mu àgg bind boo gis Sëriñ Tuubaa bind ko ci ëpp ci yi jaar ci moom da koy bindaat moom ba mu àgg mu maas ko suqi ko sàdda ko yi ca war a am yépp mu def nga xam ne mooy tax xam-xam mën a sotti ndax xam-xam bu àndul ak fiq bu àndul ak arul àndul ak ak ak ak ak tasawuf àndul àndul ak naxwu du mën a sotti yooyu nag kon moo lay xamal ne géeju woon na ci yooyu xam-xam ndax lu sëriñ bi mas a wax andil ko ko bu delluwaatee du ca teg dara du ca soppi dara loolu mooy kooku mooy Seex sàmba kon loolu moo tax muy wéy juram li tax itam muy magam ñoo bokk sëñ Mor Anta Sali muy benn wéy jur wi te mu am ci cër bu rëy itam nag ndax soxna isa mi ko jur soxna isa Jóob ci kokki la bokk silsila bu bu bu yaatu la boo xam ne ñu baax ci kokki ñëpp ñooy mbokki sëñ sàmba soxna isa bi nga xamee ne jóge na ci Lat moo ko njëkk yoon ba am ak moom sëñ Mor Isa Jóob gannaaw ba am ku ko wax ne ki nga yor de du du soxnas buur mu yàlla dogal mu ne ko kon nag danga may wan ku mu doon ci njaboot gi mu toog ñu romb ko di ko romb di ko romb ba mu ñëw soxna sa romb ko mu ne ko kii la kii na nga daal di tàggoog moom dañ jox ko kilifa yor yow waroo ko yor loolu histoire la boo xam ne ñëpp xam nañu ko mu siiw loolu fa tabaarakallaahu ba mu fa jógee ñu doog koo mu doog koo jël nag jox ko sañ Mor Anta Sali sëñ Mor Anta Sali nekk ak moom diir bu néew waaye xaas ja mu am ci sëriñ Touba bi nga xamee ne nekk na ak moom dafa gis sëriñ Touba meloom ak doxinam ak taxawaayam ak pësteef bi mu am ak li ko yàlla may mu ñëw fekk ko fa mu nekk bis ne ko day man de damay doog a ñëw ci kër gi te yeex fee ñëw lool te bëgg fee am lu baax sëriñ Touba ñaanal ko ñaan goo xam ne ñaanu xaas la fa ca la amee sëriñ Masamba gannaaw ay lu mat ñeenti weer juróomi weer sëñ Mor Anta nelaw bañ amee juróomi weer way yooyu ci la sëñ sëñ Masamba gane àdduna kon mooy mooy mooy magam ndax ñoo bokk sëñ Mor Anta waaye waaye wéyju taxawaayu wéyjur la am ci moom ndax ñi nga xam ne ñooy taawi sëriñ Touba sëriñ Modou Moustapha sëriñ Fallilou sëriñ Bassirou sëñ Baara ñi nga xam ne mooy sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou ñoom lépp lu sëñ Touba daa defal daa lu da koy boole Seex sàmba sëñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou ñoom la daa boole yu bari ci liggéey yu daa deflu bi muy ñëw bi mu bëggee ñu ñëw Touba ñoom la fa yebal si woon moo tax ñu sëñ sëñ ne leen na ngeen sañc Touba te nekkal ma fa ñu ñëw sañc tuubaa mu ne kenn ku nekk nag génn lu mat juróom ñeenti kilomètre ci ay xasab la ko waxoon mu def fa ab dëkk te di fa liggéey ndax nit ku baax day liggéey ku bëgg a tedd dangay ngay nangoo liggéey sëriñ Fallou dem Ndindi sëñ Modou Moustapha dem Tindoodi sëñ Massamba dem Daaru Karim gii tey foofu la nekkoon ñoom ñëpp kenn ku ne def ko muy say tool nga di fi liggéeye di fa jaamoo yàlla di siwaat ci dëkk bi nag nekkal fi sëriñ bi waaye sëriñ ma sàmba li gën a bari Daaru Karim boo gisee ñu di ko sancaat nii di ko def dafa fekkoon moom sëriñ bi soxla ko soxla soo xam ne mënu la sori benn yoon ba mu leen yebalee ba ñu demit dafa mujj di ko woowaat muy ñëw toogaat fi moom nekk fa daanaka Daaru Karim toogu fa déer déer bu yàgg ndax sëriñ mënta taqalikoo ak moom ci liggéey bu mu koy liggéeyloo ci taalibe yi muy benn waaye ci xasida yi muy ñaar waaye ci wàllu xam-xam ak leeral mbooloo mi ndigal yi nga xam sëriñ bi dana koy joxe loolu moo doon taxawaayu Cheikh sàmba noonu la saxe ci sëriñ Touba mësu fi jóge ba bi fi sëriñ bi jógee bi nga xamee ne dem na bay bëgg a def jumaay Touba dafa yabal sëriñ Fàllu ak ma sàmba ak ñeneen ne leen nañ dem seeti foofu la wër foofu ndax am na doj yu fa nekk yoo xam ne mën nañ cee liggéey jumaa ji ñu dem di ko wër am ku leen wax ne ndokk day gisoon nañ fa doj yu baax ñu dem seeti ko bañ demee seeti ko gis muy doj yu baax sëñ Fallou am na fa xaas lool ndax xaas ja mooy bañ gisee doj ya da ko dañu koo jël ci ab mosuwaar ëmb ko ca ñu ànd ak moom ñëw ba jox ko sëriñ bi mu téye ko sëriñ bi ne lii doj doj la yu baax doj doj dëgg la loolu xaas la joo xam ne sëriñ Fallou moo ko defal waaye sëriñ Massamba ne xaas jamu ca am mooy sax fa nag moom ñuy liggéey ñëpp di ko fekk taalibe yëpp di ko fa fekk ñuy doj yi di ko yenu ci bopp di ko yóbbu Touba ba li ëpp ci jumaa ji tàmbali jumaa ji booba sori lool loolu mooy xaas yi sëriñ Massamba ci jumaa ji doonoon nag bi fi sëriñ bi jógee itam mu jëloon léppam def ko jox ko njaboot sëriñ Touba rek moom mësula xëccu benn daraja mësula xëccu dara sëñ Modou Moustapha lépp lu mu daa def da ciy waxtaan ak moom moom itam lépp lu mu nekk da ciy waxtaan ak sëriñ Modou Moustapha du dem mukk te tàggu jiwu ko waaye sëñ Modou Moustapha du dem mukk ba ñëw te siyaariwu ko moom itam muy doxin yu rafet yoo xam ne noonu lañ ànde woon nekk noonu mukk mook sëñ Fallou akasa ba njaboot gi yëpp jeex noonu la sëñ ma sàmba meloon ak ñoom doon seen jur sëñ bi daan na leen ko wax daan leen wax ne ma Massamba kat seen jur la bu leen ko bu leen bu leen bu leen bu ko bu ko jàppee neneen nangeen ko jàppee way wayjur waaye moom jàppe boppam loolu taalibe rek la ma soon jàppe boppam noonu mooy doxinu sëñ Massamba yàlla dogal na muy doxin wu rafet woo xam ne mën naa doon référence ci képp koo xam ne ku bëgg jub nga képp ko mën nangoo topp kilifa képp koo xam ne kii nangu ngaa am kilifa képp koo xam ne bëgg ngaa sàkku xam-xam sëñ Massamba maa na nekk référence ci ndax yooyu yëpp da cee jeexaloon dundam te mës sa jeexal dundam ci leneen lu dul loolu kon kii mooy ma Massamba xëy na lu gudd la waaye conférencier yi nga xam ne danañ ci waxtaan ci màggal gi danañ ci gën a leeral lu bari ba ñi ko xamul gën koo xam ñi ko xamoon itam dolli ko waat ci xam-xam kooku kon mooy Cheikh Massamba moo moom bis bii ñuy bëgg a def muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci Chaabaan di bis bi mu ganee woon àdduna ca Pataar te Sëriñ Tuubaa def ci histoire bii mu ca def waaw ah, fii mooy jaar-jaaram yu gën a gàtt nii la demee woon taxawaayam lii la woon kon yal nañu ko yàlla fayal te yàlla dimbalenu ba fi mu tegoon tànkam nu man faa teg sunu tànk te bañ caa soppi dara nun ñiy njabootam nag am nañu sas ndax koo xam ne kii moo doon sa sa sa sa maam doon doon sa référence war nga teg sa tànk foofa te bañ caa dara loolu nañ ci góorgóorlu bu baax te xam ne am nanu ku baax am na nanu ku doy royukaay yàlla nu yàlla dimbale ban mën koo roy yàlla dimbale nu ba lépp loo xam ne ay ngëneel la ñu mën koo am loolu yomb na yàlla yàlla na ko yàlla def ñoo ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim kon ñu delluwaat rek di ndokkeel mbokk yi fi teew yëpp di ziaraat sëriñ bi di ko waxaat mu jotal ñu suñ ziar xalif général des mourides sëñ Mountakha Mbacké xalif sëñ Massamba sëñ Moustapha Massamba di dellusiwaat rek si poñ yi xam ne moom lañu tey jàng si CRD bi CD boo xam ne moom lañu def pour préparer ko màggalu Serigne Massamba Mbacke ñu gërëm sëriñ Cheikh ni mu dellu léegi si dundu sëñ Massamba et ba mu jëm gane si àdduna ba ni mu làqoo ak bi mu dund yëpp seetu sëñ Touba xanaa naa ne ku nekk gën ko see xam sëñ Massamba ku nekk tam dina yokk sa pasteef pour li ko gërë sëñ Touba gërëmee la mu ko defal jagleel nga am loo si lu mën a may jàpp nañ bu baax li ngeen wax ci yoonu Daaru Karim bi ak béréb bi également ñu war ko maasalewaat incha allah ajuru dina jokkoo ak yow sëñ bi ah waaw tey bokkutoon ci convocation bi mais dinañ nga ko wax mu jokkoo yow pour que bu ñëwee ñu xool effectivement yoon bi naka lañ ko mën a defaraate ba ñu mun fay yegg ci bésu màggal gi xool place màggal gi tamit naka lañ koy defaree bu mu mën a maase incha waa commune Touba dégg nañ seen engagement si li ñu wax si wàllu nettoyage bi dégg nañ ko camions yi xam ne moom la comité d' organisation bi laajte pour transporter bagages yi mais également li ñuy xaar si commune bi tamit pour mu jàppale service d'hygiène si produit lu ñu mën a désinfecter kër yi ñu mën a pomper kër yi yëpp ñu ngi koy xaar war a ànd ak Sénélec également si wàllu courant bi euh, Sénélec dinañ def mission foofu si wàllu courant bi pour xool dëkk bi lan la soxla si wàllu courant ay poto lampe yu ñu war a defaraat wala poto lampe yu ñu war a defaraat wala ah, lampe yu ñu war a defar yu yees loolu yëpp dina ñëw foofu xool ko euh, ñu dina xool tamit moom ak hydraulique ni ñuy def pour ñu mën am groupe bu mag bi sinon au moins groupe vingt kVA bi moom c'est disponible mu ne groupe de secours beneen xool tamit mu mën a def mook hydraulique ba ñu mën a indi groupe bu mag bi demande demande yi ñu def tamit nañ ko examiner nañ ko tamit bu si war a satisfaire incha allah dañ ko satisfaire di bëgg vraiment si amélioration bi fa am xanaa ne loolu moom Aly Ngouille Ndiaye moo impliqué woon personnellement pour ñu defar ko voilà moo defar devis bi yooyu yëpp temps bu nekk guloon sa intérieur mu doon énergie mais comme moo doon ñëw si màggal yi moo si euh, impliqué woon te témoignage la témoignage témoignage laa si def hmm. personnellement parce que fekke woon naa ci wàllu hydraulique également donc dinañ joxe quatre citernes mooy li xam ne moo disponible si région bi ak dix bâches pour gunge ko màggal bi xanaa rek problème carburant bi comme daaw posé woon na peut-être ñu teel ko seet rek ñu ko sefee soit d'organisation wala commune bi commune bi jàppale leen si carburant boo xam ne nañ mën a def rotation yi parce que daal je pense que un moment rotation yi arrêté woon nañ ndax carburant moo amatuloon donc ñu mun jàppale ñu am carburant bu doy xam ne ni mën a def waa Sonatel tamit dégg nañ ko amul foofu amul réseau mën nañ def installation boo xam ne dina mën a def li xam ne réseau la loolu def ñu mun fa def màggal gi télévision bu nekk mën ko couvrir comme nuñ ko daan couvrir ku nekk fu nekk nit mën a nekk si àdduna mën a suivre màggal gi euh, waa police waa gendarmerie waa sapeur pompier tamit ñu ngi xalaat surtout foofu zone gendarmerie la que mu couvrir bërëb bi que également yoon yi jëm si béréb bi parce que ni ngeen ko waxee gërëm ngeen bu baax seen taxawaay daaw yaakaar naa nañ indiwaat taxawaay bi mel noonu wala bëgg ëpp comme màggal gi day yokku ñu yokk taxawaay yi également incha allah ma gendarme dina ma jóg li nekk si biir dëkk bi tamit xam ne demagul daaru karim tamit wala dañuy koy def mu dañuy nekk fii nekk fële waaw ñu tamit police dina si taxaw ngeen indiqué leen rek kër yi xam ne fa la war a yóbbu ay élément ñu yóbbu leen fa incha allah noonu tamit si sapeur pompier incha allah taxaw si béréb ba li ñu bëgg tamit ngeen wan leen tante bi balaa ñuy commencé même gendarmerie war ngeen leen mën a wan tante bi balaa ñuy commencé nga ñu xam naka la ñuy assurer sécurité bi si biir tante bi waaw ñii tamit xaal naka la ñu defee ba protection yooyu yëpp mën a am ba xam ne lakk du am wala benn jéyee du am surtout si biir tante bi ñu ànd ak ñuy liggéey tante bi dinañ fa def tamit équipe bu incendie ak équipe boo xam ne tamit ñooy toppatoo nit ñi ku fa daanu eh, ñu ngi xaar tamit centre de santé bi eh, utal leen ambulance pour mën a ànd ak waa sapeur pompier wàllu eaux et forêt ni ñu ko waxee rek permis de coupe yi lañ soxla eh, moom nañ def demande bi déposé ko rapidement voilà mais également am na oto yi ndaw ndawaan wala kuy gàddu saret mattam di indi si dëkk bi noonu ñu foree si environnement bi ngeen jàppale leen si rek am na seuil de tolérance boo xam ne war nañ ko si mën a def wàllu santé donc ñu ngi xaar ñaari poste avancé yi dañ koy waxee ak ay médicaments tamit dinañ ko indi parfois hmm. ak également ambulance bi xam ne moom la ñu moom la war a jox waa sapeur pompier moom la war a ànd ak sànq ñu ngi xaar si service d'hygiène tamit moo pompé kër yi nga xam ne ñu ngi nekk biir Daaru Karim ñu pompé leen boobu tamit ngeen jox leen liste bi commune jàppale leen également si euh, produit boo xam ne moom la ñuy pompé muy élevage euh, di douane di commerce ñoom ñu dinañ def si liggéey bi ñu daan taxaw élevage dina defaat contrôle si abattage yi service commerce dina def également si produit yi ñu fay jaay ñu respecté njëkk yi mais également produit yi nekk produit yu baax waaw euh, douane tamit ni leen ko faral di waxee am na ñoo xam ne dañuy ñëw màggal si am yu ñu indaale pour lu ñuy jëfandikoo si màggal gi ma am loo xam tamit dañ ko indi def ko addiya si seen i sëriñ voilà ñu defal leen ko defal leen si tolérance yombal leen ko ba ñu mun ko indi. wàllu assainissement donc cinquante toilettes mobiles yi waaw donc dinañ ko jottali direction ONAS euh, seet li si mën a taxawee incha allah ñun tamit lu mu si laaj si téléphone pour mun a jot directeur ONAS pour mun si taa jàpp taxawaayam incha allah dinañ ko si jàppale leen mën na wuñ si jël engagement si nombre bi mais nañ taxaw dinañ leen ko wax à temps avant avant région euh, réunion évaluation bi nañ la wax ñaata toilette mobile la ñuy indi waaw en tout cas di dellu rek vraiment dina gërëm bu baax sëriñ bi si euh, yombal bi ñu yombalee lépp ba day ñëw tey bi ni nga ko yombalee lépp wax dëgg yàlla ñu nga la koy euh, nañ ñu tamit taxaw taxawaay boo xam ne vraiment dina mat incha allah lépp loo xam ne war nañ ko def si màggal bi mu mën a yemb euh, taalibe yi mën a ñëw si jàmm dellu si jàmm def màggal boo xam ne tamit day mat sukk waaw incha allah bërëb daaw daaw la gënoon métti. Ah, waaw waaw waaw mais ren tamit macha allah tamit avancé nañ mais terewul dinañ gën a laxasaayu. gën a laxasaayu allah pour mën a lépp mën a mat. merci beaucoup je voudrais donc euh, remercier tout le monde et en particulier le Serigne Cheikh. Mm-hmm. Serigne Cheikh Mamadan. Mm-hmm. et pour sànq sa sa sa mm-hmm. sa courtoisie mais également son engagement pour ce Magal. parce que dans toutes les activités nous faisons, que nous faisons ensemble, on sent donc l'engagement total pour la réussite. Et cela nous aussi nous pousse effectivement à avoir plus de rigueur dans, ce que nous faisons. Et, vraiment avoir également plus d'engagement pour ce que nous faisons. Je remercie également tous les chefs de service qui ont participé l'année dernière à l'organisation et qui, euh, cette année également, ont pris des engagements pour que l'organisation soit parfaite. Euh, la, le point de vue ou alors euh, l'instruction du président de la République qu'on tout pour que ces organisations-là réussissent et qu'on apporte aux organisateurs le soutien nécessaire pour la C'est un engagement mille fois renouvelé et que nous porte toujours le ministre de l'Intérieur. Et je pense que l'ensemble des membres du gouvernement également ont reçu, reçu les, les, mêmes instructions. Donc nous autres chefs de, chefs service et autorités administratives qui représentons les ministres dans les régions, les services Donc nous devons concrétiser donc ce, cet engagement-là de Monsieur le Président de la République. Donc euh, on a bien retenu donc euh, les demandes pour ce qui concerne la route et pour ce qui concerne également le nivellement du site donc du, du Magal. La jury va prendre contact avec euh, Marabout, président de comité d'organisation. Ils vont voir ensemble donc quels travaux menés pour qu'on puisse effectivement améliorer l'accès à Darou Karim. et qu'on puisse également effectivement niveler la place donc du Magal, la cérémonie officielle, également le site donc du, du, du <coughs> Nous avons bien retenu donc les engagements de la commune de Touba pour le nettoyage des lieux, parce qu'une date a retenue, mais également pour euh, les camions, pour le transport donc des, des, des, des, des nécessaires, des choses nécessaires pour l'organisation, mais également donc euh, l'appui qu'ils ont apporté au service d'hygiène donc euh, un produit pour la désinfection des sites et également le travail qu'il doit faire en relation avec la Sénélec pour euh, donc améliorer l'éclairage public sur le site de Darou Karim. Pour l'hydraulique, nous avons retenu donc euh, nous avons demandé 10 citernes, 10 bâches. nous n'avons pas 10 citernes, mais on en a 4, on va les mettre à votre disposition. les 10 bâches également sont disponibles à tout va. Donc, ils vont peut-être aller à Darou Mousti le temps de terminer le magal de Darou Mousti. Nous allons les à Touba donc pour les mettre à la disposition. Voilà. Rahmati également, Maou Rahmati également va travailler de concert avec le service de l'hydraulique pour assurer le bon approvisionnement en eau du magal. Sénélec va faire donc des branchements les branchements sociaux. Donc, on va, vous faire donc, des demandes individuelles, mais à réunir en un lot à apporter donc à Sénélec pour que ça soit satisfait d'un trait, également, va mettre à la disposition donc, euh, le groupe de vingt KVA et voir avec l'hydraulique comment mettre à disposition le groupe le plus important, le grand groupe. Euh, et Sénélec va également donc, euh, assurer donc, le maintien et peut-être même l'extension de l'éclairage public. donc dans, dans les endroits où il Nous avons retenu donc pour Sonatel, il n'y a pas de réseau sur place, il a pas de réseau ADSL sur place, mais ils vont mettre en place euh, un dispositif provisoire, donc euh, plus flexbox, donc pour pouvoir assurer la couverture de la zone et permettre aux télévisions de travailler normalement. Pour la sécurité, la gendarmerie, la police et les sapeurs vont s'y atteler. Donc ils vont sécuriser le site mais également les voies d'accès au au lieu. Euh, donc euh, cela. également la police dans les, domiciles à Touba va assurer donc une représentation en tout cas, hein, des sécurités. Pour cela, donc, il faudra communiquer donc, la liste des domiciles au commissaire de Touba. Pour la, les sapeurs-pompiers, donc, ils mettront en place le dispositif habituel donc, de secours et d'assistance, mais également de lutte contre les incendies. Ils vont également examiner avec vous donc, euh, les infrastructures à mettre en place. Il a pas que la tente, mais toutes les infrastructures de manière générale pour assurer donc la sécurité maximum donc, sur ce site-là. Euh, surtout le, les mesures à prendre en termes de protection civile. Donc, ils vont également donc à travailler avec euh, le, le, district sanitaire, le district sanitaire pour mettre en place une ambulance pour, pour euh, éventuellement donc les cas qui le nécessiteraient. Pour la santé, voilà, on attend donc la mise en place d'une ambulance en relation avec les sapeurs-pompiers, mais également la mise en place de deux postes avancés et de médicaments donc pour assurer la couverture sanitaire du Magal. Et désinfecter également les lieux pour le service d'hygiène. Donc la mairie fournira les produits en cas de besoin. Donc l'élevage va assurer le contrôle donc euh, des, des sanitaires donc des denrées, en particulier les denrées d'origine comme le service d'hygiène également va assurer le contrôle des denrées, également le contrôle du respect des prix. Donc, euh, la douane également va faire pour le transport de, la marche, des marchandises, euh, qui viennent de loin. Pour ce qui donc 50 euh, toilettes, vous avez demandé 50 toilettes. Nous allons avec l'ONAS ce qu'ils peuvent donner comme toilettes mobiles. Et on va, on va de vous les communiquer au moins. durant le avant avant même avant la réunion d'évaluation prévue le 14 mai euh, prévue pardon le 10 mai donc avant avant la réunion d'évaluation ils vont communiquer le nombre de toilettes mobiles qu'on va mettre en place nous allons y travailler avec le chef de service et avec la direction de de c'est vraiment les points qui étaient prévus à donc à l'ordre du jour je remercie encore une fois le marabout et encore une fois de renouveler notre engagement Et demander également à nouveau à tous les chefs de service de s'engager pour la grande réussite du Magal. Espérer que l'année c'était vraiment un, un, défi logistique à relever, parce que le site était tout à fait vierge de, de toute occupation et de toute infrastructure. Il fallait tout amener. que cette année, on a un acquis, mais que ça ne pas donc, une raison pour baisser les bras, que ça soit plutôt donc, une raison pour faire mieux encore, en maintenant engagement, le même cap, de soutien logistique notamment pour les, les organisateurs encore une fois merci beaucoup sëñ bi nga defal ñu ñaanal ñaan ñu yëkkati séance bi